mu doon taskatu xibaar bu jigéen bu njëkk biir Sénégal Annette Mbaye Darneville mu ngi gane àdduna ci atum 1926 ca Sokone doom ci Victor Hippo Darneville ak Marie-Pierre Turpin ñu gën ko xamee ci tuuru tata Annette wala mère bi Annette Darneville doon nit ku gàtt karaw bu weex yaram bu xeexeex bu wone métissage bu mu doon te mu jëgale ko ci ay maamam mu doon jigéen bu indépendante bokk ci ñetti génération jigéen bu sawar ku neex deret bu wul dundam leneen lu dul dund bu simple bu ko yàlla jégaleel la ca bu muy ndaw la am éducation bu je yoon ci Saint-Louis du Sénégal njàng ak tàggat bu jaar yoon ku gis Annette Mbaye Derneville gis ci xar kanamam jigéen bu dëgg te am foule, ci atum 1947 la wutali Paris la France ngir wéyal jàngam fu mu joto bokk ci ñu gënoon xarañ ci atum 1950 fa la manter ak ñi doon xeex ngir Afrique moom boppam jot na bokk ci kuréel bu ëmboon noir bu nekkoon France Annette Derneville jotoon na jëfalante ci wàllum liggéey ak nit yu mag ku ci mel Léopold Sédar Senghor Montan signoré ak Jean-Paul Sartre ginnaaw bu mu amee ci wàllum journalisme radio li ni mel tax dugg ci Sénégal ndax li mu doon jigéen bu ci bile li mel ubbi bunt yeneen jigéen ginnaaw loolu Annette daal di ñibbi réewam ngir bokk ci ñuy tabax réewu Sénégal ci atum 1950. ay at moo si tegu mu daldi ubbi magasin bu njëkk bu ñu jegaleel jigéen fii ci Sénégal ci atu 1959 bi ñu duppee Femme de Soleil balaa ñu koy tuddewaat Awa ci atu 1963 yàgg bu mu yàgg bitim réew taxul mu wéy di am cofeel ak mbëggeel ci réewam Sénégal ak cosaan séeréer Tata Annette Mbaye Derneville comme ñu koy faral di ko woowee ubbi na tey buntu jigéen yu bari jëm ci métier taskat taskatu xibaar di ko ñaanal gudd fan ak weer gu yaram allahuma amiin